yow mi ñu jël si nag yaa war a am sa fulay ba am foo toog ñu teg la fa kenn du la fekk ci suuf di lay yëkkati. mais est-ce que mën na am comportement bu bu bu mën a tax duñ la def seen jëf yi. Eh, xam nga. jigéen ñi sëy nañ man man foofu mantu dinaa eh. am fu ma d'accord ak yow. waaw eh, kenn mun leen a teree jëf seen jëfin mais à des degrés moindres. xam nga à des degrés moindres parce que nit nit rek la. yàlla moo ñu sàkk def différence bi que yow mënuloo am beneen jëkkër. parce que bañ ko tegee góor dafa de ñun ban nu tegee fii danoo xam. yàlla xam ne attan nañu ko ñu jox ñu ko. ku duggagul cib sëy. Hmm? man ku duggagul cib sëy. Hmm. amagoo combat. Hmm. yow licence sax amagoo ko commencé dugg àll bi di wutub sëriñ boo amee yow combat nu muy mel. moom a jaaxal. loo am ca lay yem. ca lay yem. Adja Ndak dama jàpp ni sama làmmiñ bii sama comportement bii. mooy sama sëriñ ci jigéen dégg loolu lu ma mayul sama personnalité mayuma ko xalima duma ko may. ci jigéen mooy dëgg. jaga wallaahi yàlla la yàlla fay. man noonu laay dund. moom remarqué na loolu que ni man. loolu laay xam ni. wallaahi xam naa man man xanaa mën naa yor kurus nag xanaa mën naa ñaan. non xam naa ay alxuraan yaa ngi a a a ko bàyyi mu génne beneen kër ñëw dugg sa kër gis nga borom kër ngi yàqee këram ci sama jabar ñemewu ma borom kër a ngi yàqee këram ci man dama am caractère ci sama jabar dama waay waay waay waay boo amee fulla boo tëddee guddi solal ñetti abdou fanaanoo ko ma xamay iliman que xam nga ci jàkka ji géere la yem jigéen góor bu takkagul jabar dem sukk ci sëriñ fa la defet tàmbalee billa ak ñàkk gëm sa bopp ak ñàkk gëm sa bopp dëgg la ndax da nga fay fekk fa gëm boppam boof ca ca ca ca ca ca ca kaaf ga fees fa dell nga wut xale bi façon bu ne invité ci restaurant bu nekk mu lekk say hamburger lekk say paas te fóon doo ko am ci moom mhm. loolu nag dina yëngal souvent xol mu dem ci borom xalima parce que yow muy jokkoo lu lu bari te crédit bu nag boo jënd crédit bu mu jokkoo yaa ko jënd billaay dëgg la crédit non mais doxaanu ibro italien yooyu as amatina non moom teel a gën a wàll am na xay ñii financé noonu rek te joxuñu leen benn cër xale yu góor yi xale yu góor yi xale yu bëgg. nani xale yu góor yi xale yu bëgg. xale yu góor yi ma gis nii. non non ñoom mantulaay. ñoom maam si dina doxatul ci loolu. man waaw léegi moom rokki mi rokkaan rek ko xam ab jantal moo ko xam. léegi moom réew mi rokki mi rokkaan. loolu jeex na ma ah waaw kaay ma yóbbante la. léegi loolu loolu la may. Hmm. avance Luc Nicolaï la mënuloo. d'accord naa da ngay jël d'accord naa boo koy jël di sëgg bëri bi. d'accord naa waaye am na jigéen ma gis Ndakaaru Njaay am na jigéen yu ma gis Ndakaaru Njaay njaay mën nañ laa lekk di la yaakaar loo fóon ba nga bàyyi te doo ko ci am. ay nandite. portable yu baax yi portable yu baax yi. oto yu baax yi. te fu ñu toll seeni kalpe euh, portable yii moo ngi fees dell ak wéccet mais ba xam foo xam ne bëgguma faa génn euh, muy euh, Adja Ndaak dafa wax ni respect boo jox doomu aadama mu delloo la ko waaye am na ñoo xam ne Adja. film bi ñu doon joué ci seen kër ya mhm. ba ñu fase leen mhm. la ñuy ñibbi ci si kër ci ci ci ci ci seen kër càmmiñ yi mhm. bëgg ko faa yeggale di xool rek njaga faal ak mu neex lool seen xol jóg yow fekk yow sa yow sa sëy neexul woon nga ne lu tax fii muy neex mm-hmm. tey ma yàq ko fi mm-hmm. bëri na jabar jabar yoo xam ne njëkk yi ñoo la ñu waroon a defar kii njëkk yi waroon nañoo defar sëy yaa ngi dugg thème bu garaaw njag ni nga njëkk yi yow thème garaaw nga indi loolu man jar nañu def beneen beneen bëri loo xam ne njëkk